yoon yi lu toll ci fukk ak ñaari junni yu fekk ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne amee nañu si gaañu-gaañu journal bi di réew mi quotidien nee na réew mi di Sénégal xëy te déggoo fi aw accident boo xam ne jamono ji jot na sëkk nag ñu jël ay daan yu métte métte lal ko ci ndodd ñi nga xam ne maanaam ñooy def jooyu la jëya te bi ñu ko xaymaa gis nañu ne accident yu bari li nga xam ne moo ko waral mooy dawalin woo xam ne wu jaarul ci yoon maanaam moom la dawal journal bi nee na ñoo si ñàkk seen bakkan dafa yitteelul gars yi ndax ku ci faatu ñu jël la denc la ba pare jàll ci leneen du am benn coppete boo xam ne danañu ko soppi ci nag suñuy doxalin yéenekaay gi ne na ñaari fan yi rek lu toll si juróom benn ci nit ñàkk nañu seen bakkan ci ay accident yéenekaay gi de la sa xëy dañu xibaar naan ñu lu toll ci deux cent cinquante personnes yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci accident loo xam ne weesuwul juróomi weer yéenekaay gi de Libération bàyyi mbir moomee waax ci section de recherche ak nag lu toll ci fukk ak juróom ñaar ci ay doomu Nigéria yoo xam ne teg nañu leen loxo ñoo xam ne dañu doon def ak njubati jëm ci wàllum escroquerie usurpation d'identité ak wàllum chantage ndax ñii ci seen page Facebook yi maanaam dañu doon jël photo ya def ci ay photo yu jigéen di naxtaan ay góor ba ñu yónnee leen seeni vidéo ñu jël vidéo yooyu maanaam di leen ci chantage yéen kaay gi di Vox Populi ak Rewmi Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu parti démocratique sénégalais jamono ji fas yéene nañoo dem ci ab guerre ndax bëgg nañoo xeex ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax waa PDS ñoom ab commission boo xam ne moom la ñu taxawal ngir nag waajal élection locale yi yi commission nationale boobee nekk lu toll ci fanweer ci ay membre ñoo say nekk bu ñu càmbaree nag li nga xam ne mooy élection yi ñu dëgmal ak nan la ñuy fexe ba gagné ko daal di ko yut maître Abdoulaye Wade yéenekaay gi di laas nee na baaraka yi dañu koo jàppe ca mbir ma kenn gisu ko sax yéenekaay gi nee na commission nationale boobee nag la nga xam ne moo ko tax a jóg maanaam mooy teg ay stratégie ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéenekaay gi nee lépp sotti na léegi Kër Massar département la ni ki démb la ñu li nga xam ne mooy décret bi jamono ji Kër Massar moo nekk ñeen fukk ak juróom benneelu ma yéen kaay gi di alerte ñu koy fekk fa El Hadji mi nga xam ne moom moom télévision bii di 2STV nee na nag ñi nga xam ne ñooy waa TFM maanaam munu ñoo sàcc seeni i fréquence ba pare dalu du leen ci fekk loole moom mënta nekk yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy ci levée du corps bi nga xam ne ni ki démb amal nañu ko ci ñi nga xam ne ñoo defoon ab accident ñàkk seen bakkan tey liggéeyee ci groupe de presse bii di leeral journal bi nee na Seydou Gueye ma nga xam ne moo fa teewaloon gouvernement bu Sénégal ba mu defee ab discours am ba pare dafa làmb poosama maanaam ab portable am ñu ne ko dong kaay gi du Sud Quotidien nag médicament yi nga xam ne jamono ji maanaam dafa cher ba jégg dayoo te Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum wér gi A xëy duñu la ñu dénk jamono ji nag coow la ne na fa cobboy ak xultuga ak ñaxtuga la ko waral bokk na ci Aïssata Tall Sall ma nga xam ne moom lañ ko dénk maanaam ministère boobe nag dafa jël benn sëram bu tudd Yacine Tall daal koy nommé jël benn stagiaire boo xam ne timit daat na koy nommé yéene kaay gi ne na nomination yoo xam ne bëri na ñoo xam ne maanaam ànduñu ci yéenekaay gi di réew ñu la défense a waajal li nga xam ne mooy seen rassemblement gis nañu ne am na ay détenus yoo xam ne ba léegi ñoo ngi ci kaso yi te ñoom nag dañoo bëgg ñu daal leen di libéré xëy dañu xibaar naan ñu kaso yi ci réewum Sénégal fees na ba jéggi dayoo te bëri na ñoo xam ne làq nañu leen jant bi yàgg nañu fa loola te kenn attewu leen loolee la wax longue détention journal bi rawatina ñi nga xam ne ñu nekk ci kaso yi jamono ji maanaam coono la ñuy daj yéenekaay gi de l'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu Boy Djiné mi nga xamante ni maanaam moo ne mes na menteñ garde pénitentiaire yi nga xam ne ñoo nekk camp pénal niki démb am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne déglu nañu leen ñi si des tey ji la leen di déglu ñi nga xam ne jot nañu leen di déglu ñoom nag li nga xam ne moom la ñuy wax enquêteurs yi mooy Boy Djiné maanaam gisuñu ko bi muy dem te dégguñu ko yéenekaay gi ne na waa Boy Djiné fan la jaar journal bi ne na waa dikk teg nañ loxo ñaari trafiquant de drogue dure ca diwaanu Wakaam ci libération yéen kaay gi di sunu lamb xëy duñu xibaar naan ñu Balla Gaye numéro 2 jamono ji caaxaanul Balla Gaye ab xaalis lay lijjanti journal bi nee na am na ñeenti combat yoo xam ne doomu Double Less bi magu Sa Thiès bi engagé na ko ndax Balla Gaye numéro 2 war naa bëre ak Bombardier war naa bëre ak Boy ñaa war naa bëre ak Gris Bordeaux war naa bëre ak Eumeu Sène Balla Gaye xaalis bi yëpp li ñu ko fay ëpp na xaaju milliard te am na sponsor yu bari yoo xam ne jamono ji Balla Gaye moo leen saf Balla Gaye moo leen neex yéen kaay gi ñu xëy fekk fa jamono ji